asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 22 octobre 2021 dañu ñëw kin ci yëglikaay sunu lamb la ñu xëy doore ko yëglikaay bi nag tey moom daa mel ni xëtamu njëkk moom ka ca xëy fës moom moo di Gris Bordeaux maanaam troisième tigre de Fass ba daal moom moo xëy tey ngardaajoo yëglikaay bi di sunu làmb dafa wax lu yaatoo yaatoo yaatu moom giri nag dikk na ci la nga xam ne nii moom la am ci ay ambition si combat bi nga xam ne ca la jëm giri nag moom ne na loo ci mën a dégg moom nee na dafa nar a waaj dem ba réewum États-Unis préparé fa combat dellusiwaat Sénégal bari na loo xam ne tamit wax na ko yemu ca moom giri Bordeaux ñëw na ci tamit quarante cinq ans yi nga xam ne mbër yi dañ koy am jàpp na ne mbër yi war nañ leen a mën a bàyyi sax ñu dem ba xaw a sax romb lu mel ni ki noonu d' accord na tamit ci ne na fusion wu Fass ak Ndakaaru Gris Bordeaux daal ànd na ca cent pour cent ne na loo xam ne la daal luy jur njariñ kese kese lool lay doon moom Gris Bordeaux tey loolu la wax yemu ca tamit wàllum MMA ba tamit dikk na ca ak ña nga xam ne ñoo koy def ak itam at at yañ koy bàyyeek jamono ja nga xam ne ci lañ koy nekk ba nañ koy bàyyee yemu ca ñëw na ci loo xam ne tamit maanaam dafa ñëw jàpp ne saa yu amee mbër yi rek lañ cay joxoñu baaraamub tuuma muy face à face boo xam ne dafa am débordé wala mu yàqu ba ay jagaa am te nee na du ñu accuser kenn ku dul mbër yi te Gris Bordeaux nee na mbër yi ñoom ñooy coupable ba nee na nees nañu seet feneen foo xam ne war nañ ko faa xool bokk na ci la gis parce que tamit daa jàpp ne mbir mi warta nekk saa yu amee rek ba yàqu ñu ne ña ko def du ñenn ñu dul mbër yi moom Gris Bordeaux daal tey loolu la xëy tey ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb am na ñeneen ñoo xam ne tamit yëg na ci yëglikaay bi du sunu lamb moo xam promoteur la moo xam amateur la la séminaire bi nga xam ne CNC mu ngi ko doon def ci wàllum réforme la nga xam ne moom moo di ay teg sam mu mel ni ki nag gaaya maanaam ku ci ne am na loo ca wax ca ñu ca participé woon président des amateurs du jànjeex ko daal la mu xëy xam ne tamit moom daal nee na boo bëggee dégg dëgg nee na mbir yi daal wala doxalin bii moom nu ngi koy saluer maanaam ñu ngi koy rafetlu lu baree baree bari daal parce que nag jàpp na ne initiative la woo xam ne bu baax a baax la te itam nag bu ama am solo la maanaam daal waxtaan yu mel ni ki mel ni yu mel ni ki noonu Mamadou Dieye Sène tamitam jiite ay promoteurs maanaam les promoteurs authentiques moom ma nekk seen président tamit teewoon na fa Dieye Sène tamit daal jàpp na ne ñoom daal boo bëggee dégg dëgg daal maanaam lépp loo xam ne daal day avancé lool lamb wala muy tax lamb jëm ca kanam ne na moom kuréelam ga daal pare nañu ngir saa suñ ko wootee ñu taxaw ca maanaam jëf ca ba lamb mën a jëm ca kanam loolu mooy gis-gisu ko nga xam ne wala kàddoog ka nga xam ne nii moom moo di jëy seen ma jiite les promoteurs authentique keneen koo xam ne ay amateur la jiite tamit maanaam les jeunes amateurs muy góorandooy moom itam daal rafetlu na mbir yi waaye am na leneen loo xam ne tamit mu ngi koy laaj moom góorandooy maanaam daal la am ca football ba la bëgg ñoo ko ci lamb ji muy mbirum vaar parce que daa jàpp ne tamit maanaam lamb am des fois mu jeex ñu dem ba lu yàgg a yàgg yàgg maanaam daal ñuy dem ci ay recours ak yu mel ni ki noonu nee na loolu tamit war nañ koo xoolaat moom góorandooy gis-gis booba la am ca mbir yu mel ni ki noona beneen mbir boo xam ne nii daal boo bëggee dégg-dégg yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci joxati ab menace ab technicien wu lamb mu koy jàngat muy fils de Balla ak général Malika ka xëy di ca wax moo di Sëwru Fall ma ngeen xam Sëwru Fall daal la mu xëy xam ne na boobu combat moom yomb moom ko ko cay xaar bu yeboo nga xaddi ndax ne na du ca am ñeneen seen diggante règlement de compte bu rëy rëy moo ca am moo tax yomb moom mënu ca saxa am leneen loo xam ne du yomb muy Bombardier ma nga xam ne tey MMA ba mu jëm daal ay waxtu yu néew a tere mu yegg ca dal di koy jongante ak doomi Pologne ja Bombardier moom wàllum at ya nit ñay laam-laamee naan ay atam yu bëri ndax loolu du ko handicapé wala mu yàqal ko ay mbiram bombar Bombardier daal dalal na xelu sénégalais yi ndax lam leen xamal daal wala ña koy wax nee na boo bëggee dégg-dëgg nee at moom maanaam cim xel dong la waaye moom Bombardier daal nee na fi mu nekk nii boo bëggee dégg-dëgg moom moom homme de défi la te itam gëm na ne défi bii nga xam ne moom la am dana ko régler ba mu régler wu ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo koy supporter wala ñu bëgg ko daal seen xol dal di kontaal loolu mooy gis-gisu Bombardier leneen loo xam ne yëglikaay ba ñëw na na ca tey muy ka nga xam ne entraîneur football la fi woon te itam nag kenn mënta wax football te doo wax te waxoo làmb fii ci réew mi te itam ñaar yooyu yëpp sport la mu mel ni ki nag Joseph Koto yëglikaay ba dikkaat na ci moom tey daal maanaam ci loo xam ne daal mu ko koy delloo njukkal maanaam di xam ne ne daal du mës a jóg ci sunu xol yi moom Joseph Koto yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki non mu mel ni ki daal kon tey daa mel ni lool moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi waaye loo ci mën a dégg daal dañuy ñaan Joseph Koto moomu bu baax baax baax a baax waaye di ko jàll ay mbokkam itam ya nga xam ne ni ñoom la bokkal waaye duñ ca yem keneen koo xam ne moom daal ak ñaan tey faw nu defal ko ko muy Bombardier Pologne ga mu ne di fa ñogante wàllum MMA yàlla na fa am ndam lu kawe njortam tey ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke yawmal juma parce que nag drapeau réew mi lay représenté ji moom Serigne Dia Bombardier fa nga xam ne moo di ca Pologne tey jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey loolu la ñu indil muy sunu làmb ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq di wax ne tey nag ñu ngi aljuma xam nga di balu bépp doomu aadama àq képp ku ñuy seetaan ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm si bisu yowmal jumaay bis bu sell bii tey nag ah fi nga xam ne fa la ñu fas yéenee doore waxtaan wi moom mooy xët wu njëkk sunu làmb rek comme ni muy amee chaque jour rek waaw tey sunu làmb tey xëtamu njëkk la ca xëy gën caa fës tey moom moo di Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass moom nag moo xëy tey seq waxtaan wu yaatoo ak yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ñëw ci lu yaatoo yaatoo yaatu ngeen gis ko noonu mu ngi noonu toog ci saison hmm, di waxtaan ak bi yaa ngi dégg moom Gris Bordeaux troisième tigre de Fass le futur adversaire de Balla Gaye numéro 2 yaa ngi dégg moo tax nag ci waxtaan woowu nag Gris tey li mu jàpp mooy digganteem ak Balla fi mu nekk nii. maanaam du lu muy wala lu muy caaxaan parce que nag nee na incha allahu dem réewum États-Unis préparé ji fa jar na ko parce que itam koo xam ne da ngeen a euh, nga xam ne moo doon stade Léopold Sédar Senghor defe naa ne at loolu kenn dootu ko fàtte Sénégal ndax combat bu kera defe naa stade Léopold Sédar Senghor pour nga def woote fa football mu fees dell dell jafe la mais bés boobu laa gis làmb woote fa mu fees dell dell nit ñi am problème sax dugg ci arène ci ci ci stade bi te Gris moo ko waroon ak Balla Gaye numéro 2 léegi ni ko laay tëggoon ko. defe naa kon bu ñu joxaatee ba bis ñëwaat seen combat revanche tey Gaston Mbengue tëgg ko ndax li tax revanche mooy bal da ko gañoon par ay avertissement yu Gris amul gë ëppale ko làmb ja jeex jox Balla ndam li yaa ngi dégg kon defe naa tey bu Gaston Mbengue àddinay doxaat ñu koy nuy di ko jox suñu papa mu tëggaat jooju làmb muy revanche ah jar na dem ba état seen préparé ji di Gris te it parce que Balla ku ne xam ne fi mu nekk nii moom moo ko wax ñu dégg ko foyetu maanaam carrière am ci des da ko da ci bëgg a wane lu leer parce ku ne xam na ne gis nañ fan yi ni muy doxale INSEP Sénégal day baagante pour lan ngir boppam kon adversaire bu mel noonu nag kenn du ko am mukk naan yaa ngay nelaw kon làmb la joo xam ne ju nar a méttee métti lay doon mais nag yàlla dañ ko fekk te tal ko yemu ca moom Gris ñëw na ci tamit ci côté atu retraite mbër yi 45 ans yi jàpp na ne mbër yi mën nañ dem ba au delà de 45 ans ah waaw loolu nag bon euh, xëy na gis-gisam la ak xalaatam teg si CNC yi moom dana nangu loolu loolu tamit mooy mbir mi parce que lépp lu mu ci mën a doon rek mais nag terewul làmb ji comme ni ñu gisee muy doxee ni ko birasee nag équipe am di doxee fan yi man Babacar naa ko ci waxtaan wi parce que nekk neen sax dama ci profité wala anticiper maanaam ñu ngi doon def séminaire fan yi passé te loolu lépp pour lan la pour waxtaan te defe naa kon bu fekkente ne da ngeen jàpp ne 45 ans yi surtout yow mi nga xam ne yow yaay jiite les lutteurs en activité yow Gris Bordeaux ah bon loolu lépp xëy na waxtaan la waaye sport de combat daal xam naa ne nekkul lu nga xam ne nii lu lu yomb la parce que bokkul ak football xam nga football onze ngeen di doon balde ci terrain bi yaa ngi dégg des fois sax nga son xaw a dox tuuti mais bëree moom wala ay boxe ak ay MMA yi moom yéen ñaar képp seul ak arbitre bi lay doon te bi moom atte dong la fay nekke ak yëkkati loxo ki gañe ak joxe match bi kon yaakaar naa ne loolu lépp nag bu ngeen ci waxtaanee xëy na mën ngeen ci trouver terrain dant ba ñu yokk ko yaa ngi dégg waaye xam naa daal ku ci nekk rek la ngay yëg yow yaa koy xam ci sa bopp ci waaw ci wàll yu mel ni ki noonu mm, ba tey bu ñu continuer ci lu mel noonu duñ fa sori parce que li ma leen di waxti waxtaan bi nga xam ne moom la CNG ubbi surtout fan yi passé nii muy benn waxtaan boo xam ne ubbi nañ ngeen gis noonu du jàjjee ko président des amateurs Gora Ndoye président des jeunes amateurs ki nga xam ne moom mooy Mamadou Dieye Sène président des euh, promoteurs moom tamit mu mel ni ñoom ñett ñoo ñëpp demoon nañ ci la nga xam ne nii moom moo doon séminaire bi nga xam ne seen CNG amaloon na ko doon waxtaan lu jëm ci texte làmb jëpp yu mel ne ki noonu mu mel ne ki nag loolu bi mu amee ñoom ñi ñoom ñett ñun nga xam ne ay acteurs yu ñu xam nañ ci làmb jox nañ seen kàddu bu dee du jan jekku la daa jàpp ne moom ah mbir yi daal vraiment ñoom lu ñu rafet lu la doxalin bi ak niñ koy defee jéy tamit jàpp na ne moom nekk na mbir boo xam ne ni ñoom lépp lu nga xam ne ni day tax làmb avancé jéene na ñoom bu ñu leen ci woowee rek ñoom jar nañ ni socce dañuy ñëw participer ndax lu yokk làmb rek moo leen fi tax a nekk jéy seen noonu la gisa moom en tant que promoteur ñu koy nuyu di ko ziar ma ci profité parce que bu ma tuddee jéy faw mu nuyuwaale euh, jarbaatam Abdou Sène di suma jarbaat waaw di xale bu am yar macha allah ma koy jaar bu baax a baax a baax di nuyu famille boobu yëpp parce que jee xam nga li may wax rek moom du ndakaaroo ñu boole <laughs> waaw loolu la yàlla dogal maa ngi koy jaar bu baax a baax waaw moom gis-gis boobu la ci amee ba tey ci mbir moomu góorandoo yi mi nga xam ne ni tamit moom les jeunes amateurs moo leen jiite moom tamit wax na ca xalaatam moom jàpp na ne rafetlu na jataay yooyu et puis lu war di am la waaye yemu jëm moom it mu ngay leneen loo xam ne maanaam nañ ko indi ci biir làmb ji muy vaar VAR nag soo ko déggee mooy la am ca football ba parce que ku ne gis na ne football bi des ah bu ci litis amee ci wàllum bit bu dugg te jàpp ne hors-jeu la sur le coup dañ koy régler ah pourquoi mënta ñëw ci làmb effectivement mën nañ ñëw parce que des fois sax da nga koy gis ci lit simple bi ah des fois am ñu dugal recours léegi léegi léegi ñu régler ko kon defe naa itam war nañ ko mën a indi ci lit affaire frappe bi pour que mbir di gën a leer xam ne mbër mi moom balaa ñibbi dina xam la mu mais des fois ñu jox mbër ndam après une semaine ñu ne kas nañ verdict ba wala euh, moom moo daanu mu nekkaat beneen mbir yooyu yëpp nag manees na koo régler yaa ngi dégg régler ko du passé keneen koo xam ne tamit ñëw nañu wax ci benn combat muy Sëwru Fall ngeen gis ko noonu muy wax ci combat général Malick Fils de Balla muy combat boo xam ne bëri na wax fi mu nekk nii parce que li ko waral mooy combat en Sëwru nag li mu ci wax laa gëm nee na combat bi du yomb te règlement de compte moom seen diggante waaw xaw ma règlement xaw ma mu fa ko def parce que li tax mooy ñoom ñaar ku fi nga taxaw la nga bëgg mooy jàll dem sa yoon te combat bii daf lay jàllale muy dimanche ji nu jëm Assane Ndiaye tegu ko ñaari mbër yi nag diggonte bi bëri na waa boobu ba tey ñu ngi diggante ku ne def nga sa open press général Malika def na démb bëri ki dem fils de Balla def na ca Géejawaay mu mel ni kon li des mooy at suuf la ñu bëree te incha allah rabi sax am na plateau boo xam ne dinañ leen ko jagleel plateau spécial ci combat boobu ah euh, boo euh, entre promoteur bi

mu ngi noonu moom Bombardier fa mu ne ca Pologne di fa jongante ci wàllum MMA tey Sénégal la fay représenté parce que su gañee dañ naan doomu Sénégal moo gañee yaa ngi dégg kon Bombardier tey ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam lu sëdd guy barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que tamit bon defe naa MMA tey bu ñu ko découvrir fii Sénégal ci làmb ñun bokk si li may jàpp man defe naa ne moom la kon yeeyoon na kat ñaanal ko kon Bombardier ñu ngi lay ñaanal sa combat boobu yàlla nañ ci jëlee ndam lu seddu kuy tay tay incha allahu rabbi di la ko ñaanal bu baax a baax waaye aussi tamit noonu la ñuy profité di euh, jaajëfal koo xam ne tamit doomu Sénégal la bari ki dem mu gagné benn prix meilleur humoriste de l' Afrique muy Kouthia tey bu la neexoon nga ne Coupe d' la ci wàllum humoriste parce que noonu la demee Kouthia di ku nga xam ne tamit ñun suñu soppe la Euh, parce que dem nañ te TFM témoignage waxtaan ak moom ci loo xam ne nii soppe am suñu diggante la ba pare tamit yàlla dogal mu nekk xaritu suma xarit di maître Pape Sène sol dàll ñëw ba ndondol ngir maître Pape Sène kon kooku yaakaar naa su gañee prix bu mel noonu defe naa ne ah ñu mën a def lu nun tamit du jaajëfal ko di wax ne Kouthia moom lu ne mérito na ko parce que li muy liggéey da koo ragalul da koo jox am lu mu laaj da koy def pour liggéeyam kon defe naa ne loolu tam ñu ngi ko ci jaajëfal di jaajëfal groupe Futurs Médias yépp fa nga xam ne nii fa lay xëy waaw di nuyu fa ne yépp rawatina suñu soppe ya fa ne ñoom Mao Cissé ñoom suñu grand leen di koo xam ne daal yaa ngi ñuy seetaan waaye di leen bàyyiloo xel daal nekk weekend bi moom dina neex ndax général Malika fils de Balla Iba Mar lay amee terrain gaal gi ka nga xam ne moo di Ablaye Diop teg na fa 2 millions 500 lépp ci dimanche ci lay am kon fu neex waaye Soisir Iba Mar ca dóor ba gaal gi ca làmbi simple ja di leen jox dig daje alterné ci beneen JDA di ñaan jàmm Sénégal yàlla na ko fi yàlla def di ñaan ajjuma ji yàlla nekk ajjuma ji nga xam ne ni daal ajumay barke la xéewal yi yàlla wàcce ko fi nga xam ne ni moom moo di ci réewum Sénégal mais tamit di nuyu benn frère Bombardier euh, ki nga xam ne moom mooy Balde parce que démb dafa ma feeñu waaw mu ngi fële France maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax moom tamit démb parce que bon soppee la te day bàyyi xel li ñuy def ba wut sama numéro ba def ma démb signe maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax kon gars ba leen incha allah.